chers internautes di GFM tey dañu am mbégte ak contenté daal di dalal ki nga xamante moy couple ñan couple ñan nak bu leen ko waxé daanaka xel yi dinañ xaw a sekki sàkka waaye bu leen né rek Sané ma jox xélé daal di dem ci ki nga xamante moy Maguette Seck ak monsieur Niang di borom kërëm ñom nak lañu dalal tay fi ci studio bi Maguette nuy nañ la. wa ma ngi lay fay. naka Saint-Valentin bi. Saint-Valentin bi neex na de. torop neex na torop wa yal nañu koy féete ay. at yu bari d' accord maa ngi ñëw ci yow le temps ma nuyu monsieur Niang monsieur Niang nuyu nañ la ma lay fay soxna si ñu ci jàmm ñu ci bu baax a baax ah. mhm. dañuy ñëw rek màgget nak wax ci nu mu tuddee di buzz bi comme niñ ko tuddee mhm. buzzu Sané Madio bi waaw <laughs> noo dundee buzz bi xanaa am ci kontaan te ndox nak ma màgget waxal bu baax nag màgget bàyyi yeru xanaa kontaan ci loolu nag mhm. ba waral ma wàcc wàcc sama itte yëpp ñëw supporter li nga xam ne sunu réew te nu yaakaar ko ati at. ñëw Dakar. Mhm. ma bàyyi sama it yëpp daal ñëw si porset suñ gaynde yi. d'accord lu nga préparé woon la wala da nga toog rek naka la la mbir mi dikkee. mbir mi ni ma dikkee maanaam man fëralu ma di supporter sax. Mhm. waaye saajo Madio dafa nekk loo xam ne dafa dugg ci sama xol. Mhm. ndax tamit xale bu am jom la bu nangoo liggéey te xam naa ne li muy def nii. lima ma waxoon dafa jël combat bi rek tek ci bakkanam manam football bi dafa dafa football ba jël football bi tek ko ci bakkanam ba waral mo waral mu def senegal ndam li indil ko senegal mm-hmm. waaw. mo dal nga juk euh, li Sadio Mané ne taxawoo comme ni nga wax jël combat bi tek ci bakkanam mo waral nga juk dal di supporter. loolu nak waral mom mi doon xamne moy sama borom keur mm-hmm. mu ne ma da ngay togg añ. ma mm-hmm. gontu man ko ñaatee ma dem supporter ji. mu ne ma démb da ngaa supporté ba une heure deux heures nga soog di tëdd xanaa soon sonn ma ne ko léegi nag jënd añ wala yow ma jëndal la añ man suur naa. lépp rek nga patriotisme. waaw ndax euh, mbégte gin am ci mhm. Sénégal. te dan ko yaakaar ay ati at kon li ma wax rek. Mhm. léegi na ma daal di dem bi ma joxee na ma léegi kon jëndal ma añ léegi jëlal mi cinq cent yi jënd ci mooy. Mhm. léegi ma daal di fekk moom tamit buy dem damay wëccal xaalis li may wëccal ma koy cotiser di ko denc. suma ma mm. jëndee deseel ma jël ko man tamit daal di dem ci benn mm, pa nako dama bëgg li ni dama ko jënd le nga ñawal mako da dama bëgg dem si porte ji ci la ma bi ñawale li ak mbëm mi mm-hmm. légui ma daal di sol ko légui mu daal di gontu bi muy gont mu wàccee ma buntu pale na ma defal attention nak mm-hmm. ndef yi bari na nit mm-hmm. ma ak amu benn problème ndekel la Macky Sall di genn këram di dem aéroport di téru gaynde yi mm-hmm. fi fi muy génnee non ak auto yi ko jëssé yëp ma ngi sum sama téléphone pour jël papa Macky Sall mm-hmm. pour lépp rek ndam mbégte gin am ci Sénégal mm-hmm. te xamna li lii yëpp dañ ko yaakaaroon ay ati at waaw fofu ku doon toon supporter sax di nga supporter ndax tamit li dafa doon nang xamne mbékté la ci Sénégal man tey ma daal def sama mbégte rek ci Sadio Maajo. léegi ma jaaxal turu Sadio Maajo Sané Maajo bi. Mhm. Sadio Mané bi nga mënul bi naka la. tur bi mën naa ko de mën naa wax Sadio maane bu leer. Ah. waaye dama fideer dama bëggoon mënatuma mesurer sama bopp la war a ma ne Sadio mhm, naaju mhm. ay affaire bi def buzz ñëpp la partager ñii ah mhm. naka nga naka nga dundee bës boobu comme ni nga koy waxee waaw bës boobu man dama ko dund pour gaynde yi ak sama réew mhm. ndax tamit kenn amul lu dul sam réew loo tukki tukki loo am am dinga nga dëppaat ci sa réew te doomu senegal dafa war a am jom bëgg réewam li waral man bës boobu mu dugg ma mhm. ba war a mën a Sadio Maajo dafa am lu tax te tamit li waral waa TikTok dafa am lu tax ma def ko pour gaynde yi te sóoraale ma woon ne nii lay demé ta la te tamit li waral ñu may tiktok manam ñom la rek ndax Sénégal yag na demé ni borom télé bi sax ma tok muy borom kër gi muy mm-hmm. papa Youssou Ndour dama ko ci jallalé day génn tam sax mm-hmm. ñi jël ko jallalé ko ta fekk na du ci jotagug mm-hmm. mu ëpp ma loxo nak ba sha allah xamatu ma nan la demeeti wa tiktok nak mooy loolu am na ñoo xam ne sax dañuy dugg ci tiktok bi naan ma man la waa tiktok may nan la benn som ñu ngi la koy dugalal Wave wala Orange Money araam dañuy bëgg am buzz rek. pour mhm. wax ak man. ah jot nga cee jot yooyu. bàkki Seydina Muhammad nit ku la woone la ñu ngi lay yónnee dara. Oh, waa ba ci waa Wave xam nga tamit waa Wave dañuy am ndaa am góor yoo xam ne bu ko waa Wave sax ñoom dañuy bëgg am buzz daane mën la waa Wave. ah dañu koy mbubbo dañ koy mbubbo tay do wa tiktok te wa tiktok instant bi ñu ngi liggéey ci man nak ndax fi ni tiktok rek moy tiktok xalé yi di tiktok xalé yi di mhm. tiktok ñi ngi liggéey bu baax ci sama saaju maaju bi légui yow loolu nak naka nga ko gis la da nga gis ni que ni c'est anormal wala Lo fasiyene non normalement même bu xalé yi dee tiktok te tiktok bëgg am buzz mhm. wa tiktok normalement war a nan maa woo sax félicité ma ci saaju maaju ji ma wax mais ñëpp ñiy jël sa image di ko utiliser waat ñooñu kenn bu woowu la ceeg yooyu. du kenn du ki du du ki ma caméra sax ki ma jox micro bi buntu pale. Mhm. sax woowu ma. ok télé boobu ba tey mënuma la la nii la ak nee la. Mm, mhm. ci démb tamit am nañ ay information yu ñu jot jot nañoo dégg ni que ni affaire Sadio Mané ji neexul woon euh, sa borom kër ba mbir mi daal di ëpp loxo ba mu xaw la euh, ba ngeen ci jote ci daal. waaw ndax Sénégal am na ñoo xam ne buñ xasee siiw li naan siiw di jàmmi borom. Mm-hmm. yow dina am yenn nit ñoo xam ne dinañ la woo. Mm-hmm. waaye doo xam fu ñuy jëlee sa numéro. Mm-hmm. te man doonuma nit koy TikTok doonuma nit ko yoo xam ne day dugg. ay waaw. man yooyu sax jaar doxuma ci waaye après boo demee ba yàlla dogal ne lii ma wax rek te suñ borom moo waraloon mu jaar ci suñ gaynde yii ñu indil ndam li kon fu nekk la numéro yi di jóge mhm. yeneen numéro yi am na ñoo xam dan may woo ma wuy leen ñu ne ma kon doo Sadio Madio xel téléphone bi wax naka sëdu noonu mhm. guddi ak bëccëg demoon naa ba sama tension bi dafa yéeg mhm. ndax sama téléphone bi boo ma dee woo sax sama pap mënatumaa jot vocal yi tey teg lantoo téléphone bi su may wuyu diggante bi lu tolloog téeméeri nit dina dugg légui nak mom tamit day liggéey mm-hmm. ndax do kat war la mm-hmm. té nit ku nek so day liggéey di nga jël pause dëgg la bu nelaw su message ne keneen wala ma alu wala mu soné rek day yew mm-hmm. su défé nak mom tamit mu né sama ba baa ngi miti mënatumaa nelaw légui dama bëgg bu dee sa station bi yéeg na ba mënatoo wax sa baat bi té sa nopi di rir dina la jox garam nga dem pharmacie jënd ko légui nak bima démé demee way sama tante bi nek fofu xam nga rek wutal ma ay yo ay ne ay lu may kalmu mhm. la ak mhm. yooyu ci laa demee ne géejawaay sama rakk ma woko ko dafa am ben télé bu la bëgg jël émission mané ko ngiraan man fi né télé sax dama ci doyal micro laay bañ gis mhm. mune ma lan la mané ko coupé sama tension bi dafa yéeg mënumaa wax mune ma lék kon ma ngi ni di dem bawal man la mbay la borom kër gi ni mo sam papa ànd nañ photo camp jassé foto baa ngi ci suñ saal léegi ci la ma yóbboo làmbaay nag hmm. ma dem noppalu fay sama téléphone tuuti tëdd nelaw bi ma ko taalee ba bi ak sama connexion bi dafa jeex ci saa si te fekk na dërëm sax léegi-léegi dama naan sama benn xarit bës bi dugalal ma foofu connexion ma wax ak fan si ndax parce que wax naa benn tojaanga boo xam ne gaynde yi rek ma ko yóbbee. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la kon daal ni nit ñi di wax rek ak histoire bi fi mu yegg ñu naan jëkkër ji de koo fase ak lii ak lii yooyu dara amu ci. non dana ma woon nag ginnaaw mënumaa nelaw. te yow tamit sa tension bi réglé wu te yow nit ñi dañuy dox ba fi ne boo duggee ci oto sax wala ngay dox ci mbedd sax yow la ñuy waxtaane mm-hmm. nit ñi di la ree di la tiktok di la incité di la def lépp. te yow juróomi dërëm am na ñoo xam ne dañuy woote naan dugal naa ko cent cinquante ak lépp te fekk ci dara. kon demal toog seen kër ba man daal man man a liggéey. Mhm. jël tuuti pause nelaw. d'accord ndax ba affaire bi amee ba tey man aw ma jaam. ci nga dem seen kër dem Lambaay. laa demee suñ kër Lambaay dem noppalu. d'accord mhm. léegi nag monsieur Niang damay wëlbatiku ci yow rek. nga wax ñu naka nga dundee mbir mi. Ah, mhm. waaw vraiment bi neex na trop. waaw xuloo boobu ñëw tamit bon man maa mu dem toog seen kër seen seen seen kër quoi. toog foofu parce que coow dafa xaw a bari sama bopp bi te man guddi laay liggéey taximan laa quoi. dëgg la mhm. mm, ma ko demal seen kër ngeen noonu fasewu ko kii dama ko fase sama ragal sama lépp la. dëgg la sama doomu baay la. ndeysaan sama doomu baay la yàlla def ñu jox ma ko. Mhm. kon duma ko bàyyi noonu. léegi nag ñu ne fase na jabar ji. amut man maa ko ne. comme que man fi nii mënut maa nelaw gu tamit guddi laay liggéey demal nga toog seen kër ba affaire bi sama bopp ñëwaat quoi. Mm-hmm. affaire bi noonu la demee. mais façon ma ko faram a parlé. d'accord léegi comme dem na ba noppalu ñu ñëw. yàlla def waaw léegi nag bi mu noppaloo ko ba ñëw seen kër ñu woo ma fa lay géejee ma dem ma dem géejee way magam ba jigéen bi woo ma na ma tey la Saint Valentin bi. Mhm. dama bëgg ngeen jubóo ci Saint Valentin bi quoi. Mhm. affaire bi bi yëpp at euh. na ne fàtte na ko. Mhm. def na lii def na laa te sama rakk sama lépp la. lu ma ko mas a si àdduna. kon nag Saint Valentin kon bu ma mën naa ne Saint Valentin bi la. Saint Valentin bi mu demee waaw Saint Valentin neex. Mm. waaw dafa neex vraiment pare neex Hmm. waaw loo ñu ci mën a ñamal. ah <laughs> non li ma la ci mën a ñamal bon neex na rek. Maguette daal def na ba mu baax def na ba mu baax indi na ma fleur bon maanaam macha allah daal. Hmm. waaw très bien. def na lépp daal moom franchement parler. d'accord Maguette comme monsieur Niang sax ba ñu nangu ñoo wax Saint-Valentin bi nu mu demee yow noo ko def loo ko préparé ba mu xaw a kontaan ba mu kontaan nii sax. waaw loolu bu ma ko laajee dinaa ko ton ndax kii même bu dul Saint-Valentin sax chaque jour dama ko war a defal Saint-Valentin ndax saa ak la. te yàlla dafa dogal mu jël ma yërëm ma bëgg ma mm-hmm. te nag dañ naan borom kër da ngay am na jigéen ñoo xam dana war a sëy ba deew te kii mm-hmm. même bu dul bii dama koy war di bégal même bu dul Saint-Valentin dama ko war a bëgg bégal mm-hmm. waaw kon daal démb bégal nga ko daal ba mu bég même bu dul Saint-Valentin sax chaque su dama ko war di bégal léegi nag Maguette léegi dañ lay wax rek nga ban appel ngay lancé gannaaw comme ni nga koy waxee bës bi ëpp na la loxo. ginnaaw bës bi ëpp na ma loxo maa ngi lancé ne borom kër gi di papa Youssou Ndour maa ngi koy ñaan mu jàppale ma bu baax ndax parce que damay liggéey damay daan sama doole. ak bonne volonté yi képp ko mën na dimbali. ak képp ku ma mën a dimbali ak euh, mère Marème Sall. Mhm. maa ngi koy ñaan tamit. mu jàppale ma bu baax. yow lan ci lan ngay yëngu. man damay jaay maanaam dóor laa man lu ma xam ne day génne weccat rek dama ci yëngu. Colobane presque fa laa juddoo mhm. yaroo fa. Mhm. di dóor waar. ndax tamit Sénégal soo dee dóor waar da làmbatu rek. Mhm. te tamit ni may dóoree waar dafa metti waaye lépp tamit jàppale sama ñaari waajur. ak sama famille ndax tamit lu ma dal ba ma dalee liggéey ba tey. façon xaas bu nekk nag laa jàpp macha allah waaye tamit boo dee seet ne yow boo dee liggéey danga cee war a jàppale sa ñaari waajur ak koo xam ne yaakaar na la ci sa sa doole doo mën a denc dara dëgg la nag ñàkkuma waaye nag dencuma fi ne mënuma ne la de denc naa quinze mille te façon xaalis bu ne laa jàpp ba ma delee liggéey amaguma fukki fukki at bàkki sëñ Fallou sonn nag nekk maas fi may léegi léegi damay ñëw jugee làmbaay trois heures du matin bi mm-hmm. horaire bi su ma ci duggee wàcc bunt pikin gii buntu pikin jour bi may agressé ci oto lan ma fekk sama téléphone muy oto te boobu takkaguma mm-hmm. ndax Colobane lan ma agressé woon dóor ba sama kalam gi yëpp toj mm-hmm. bàkkee yonent bi ma ne léegi ginnaaw demee ne nii naay gont su ma gontee daf agressé nañ ma bunt pikin heure bi ma horaire bi wàcc ay 4 heures 5 heures 6 heures du matin agressé nañ ma géejawaay ndax fa laa yaroo gont di finance suma ma di finance ñaari kesi yi yi may yor mhm. yi def ñaari paani jën dama koy xëcc teg ko ci ben puus puus mhm. bal fuute yi nek foofu ñu yóbbul ma ko marché poisson suma ma marché poisson bangi yi teg foofu di fa dëgg ay di waas mhm ci laa jël carton yi jën yi ni glacé mooy carton gis yeeg yooyu ñuy mm. glacé ci conteneur yi mm-hmm. dajala carton yooyu laa teg ko ci dénk yi tëdd ci boobu takkaguma mm-hmm. léegi nag ñu ne ma sama paam ne ma waa lu tax nga bàyyi géej man papa du dara te bëgguma maa fanaani waan fenn mm-hmm. waaye dama bëgg di fanaan fii su ma xëyee rek yow rek dugg ci marché bi mu ne est-ce que marché bi wóor na nga fanaan fi wala am na sécurité ci jigéen pour gardien bi di la gis ñëw sàkku la wala nit du ñëw dugg fi di la agressé wala mu ñëw sàkku la ma nag papa dee ma rek naka pexe. Mm-hmm. maa ngi bëgg weccet woo xam ne dama ciy dimbali sama yaay. Mm-hmm. sama yaay tamit macha allah yàlla dafa def man maay jigéenam maay góoram. maay jigéenam maay góoram loolu tax sama sëñ bu baax bi ñu doon sama mag. Mm-hmm. mu bàyyi ma ca kër ga sa yéegu ma. dëgg la looloo waral may ñëw di tëdd ci dénki maa sey di tëdd ba bët set. 4 di bala ñoo nodd ma juk daal di wut sat la ci douce ma sey sëlmu da dugg ci bir maase bi dajale ay jeun ba sama bagage fess ma daal di galaase sotti galaas paa yi nekk sama liggey di ma ñaanal te xamuñu ma Nama li ngay def metti na ci jigéen gor góorgóorlu rek mm-hmm. nay saf xorom nay glace gi saf mm-hmm. ndax bawol dafa sori suma wacce horaire bi leg leg mu ne ma duma la meuna jël ndax boy yi dafa meunta dugg ci horaire bi njege njaay xam nga yaatu. Mm-hmm. su ma demee ci biis yi léegi léegi day am biis yoo xam ne danaa ma duma la yem ndax duma safi jën. Mm-hmm. léegi léegi damay toog buntu pikin te boobu takkaguma ba yenn guddi ma daal di muur keesi ñëw ba ci station bi ci oreille oto yi géejawaay di taxaw car rapide. Mm-hmm. ma toog ci station pompis yi foofu. fanaan foofu toog ba bët set jàkkaarloog booy yi. kon nag yow dóor waar rek nga xam. waaw léegi léegi tamit damay jël benn oto boo xam ne dafay jóge ay 6 heures su wàccee ndàngal ma. fekk kalandoo yi laa mbaay mm-hmm. su fekkee nawet la damay tëdd noonu dajale ñaari kees yi def ci nii teg siwo bi daal di wéeru daal di nelaw ci kaw tali bi mm-hmm. fi ma wàcce noonu ci arrêt bi ndax duma am oto tey mooy loolu suñu dëkk bi bay dem làmbaay diggante ndàngal mi ak làmbaay neuf kilomètres la mm-hmm. mm, ma daal di fanaan foofu te lépp tamit duma ko wax sama ñaari waajur ndax damay bañ ñuy xolu dëgg la wala ñuy xalaat wala ñuy bañ a nelaw te ci man dara. Mm-hmm. tey damay dóor katuwaar rek. Mm-hmm. am jom bañ ku ma yeb. dëgg la. dëgg la affaire bi am na foo xam ne su ma fa eggee. Mm-hmm. day sori ci man. daal yaa ngi lancé appel déet bul jooy bul jooy bul jooy Maguette bul jooy <laughs> metti na ci jigéen léegi daal yow dangay ngay lancé appel ñu mën la dimbali. waaw maa ngi lancé appel bu baax nag. bëgg ku ma jàppale surtout ma Sadio Madio mooju xam ne mbégte gi moo waral lii lépp am ak tamit village bi mu jógee moom tamit am jom jóge village moom tamit nekk ci réew bu ne def fa jowam ba yàlla def mu indi lii Sénégal te ñu ngi ñaanaat mu amaat mu defaat beneen kii boo xam ne day indiwaat leneen Sénégal ndax lépp tamit moom la ak képp ku ànd ak Sadio Mané ak seen équipe bi ñoom ñëpp mhm. parce que bés bi toll na foo xamante bi toll na foo mhm. xam ne lépp ñoom la rek ba ci Aline Cissé ñoom ñëpp seen entraîneur bi waaw. ngay bëgg da bëgg génn ci mbedd bi ñu ne Sané maa maa jàpp sama mii ma nii xotteeku ba sama rakk bi daal di ma lii ndax fi nii lii tamit mooy sama àdduna ndax tamit lii mooy sama réew. Mhm. waaw maa ngi ñaan tamit. kii di borom kër gi di papa Youssou Ndour maa ngi koy ñaan mu jàppale ma ndax tamit damaa soxla tamit ku ma jàppale même bu dul li ma juum ne nii ci sunu yooyu na Sadio Maajo mm-hmm. damaa soxla woon ku ma jàppale te aw ku ma jàppale ndax jamono si mm-hmm. kenn du la jàppale ku la tane tamit dalay xool rek di la mm-hmm. ree waaye du la jàppale léegi-léegi damay jënd jën sax sama xaalis jeex am na boo xam ne léegi yow ku la jàppale woon lan ngay dek man ku may jàppale. lan ban lan mooy sa projet. man lan mooy sama projet ku ma jàppale pour sama liggéey gën a continuer ma am oto boo xam ne naa ci mën a yebbi jën su ma ko yebee am man cee am dara du may paas ba sonn du may yéeg a ko waaj duma dugg oto ñu bañ maa yeb may fanaan ci kaw tali bi. Hmm. te ku may jàppale mu jàppale ma loo xam ne ah, vie lay doon yàlla may ma xéewal boo xam ne naa ci mën di suturaawu ak dëkkuwaay wu baax woo xam ne. dinaa ci mën a nekk ak samay waajur. dëgg la baax na ndax sama waajur wu jigéen man maay góoram maay jigéenam. ndeysaan te lool dafa yaakaar jooju. Mhm. même sama taaw yaay bu jigéen mi ngi ci mhm. néegu sëyam. Mhm. damay jël sama weccat di ko cotiser pour yokkal leen seen ay neex ak sama caatu yaay. dafa am sama benn rakk boo xam ne tamit mi ngi mbàkkee dama koy laasee. dama koy jàppale léeg-léeg ndax bitim réew neexu te jëkkëram moodu moodu la Espagne la ne mhm. te kon xam nga ne bu nu wéeroo ci yow rek mhm. dërëm boo am sax bu fekkoon ne danga koy toj dama koy toj di leen ko séddale jimboo sax dama koy jënd di leen ko séddale yal na yàlla fay sa xol sama kër papa macha allah sama papa jéppiwu ma jigéen laa waaye tamit lu góor di def maa ngi jéem a fexe bégal sama papa pour mu mhm. kontaan ci ma barke bàyyi mm. la yàlla baax na gannaaw loolu looy tëjee ginaaw loolu li may tëjee maa ngi sant sama doy bàjjan di pab Lambaay ak mm, ginnaan jóoba sama doy bàyyi la kooku mhm. dafa nekk Gabon sax macha allah su ma waxee moom day am nu muy kontaante sama doy bàyyi yep ci ngiraan mbay jenn ak pab uh, pab Lambaay mhm. pab Lambaay moom dama koy ñaanal mhm. moom moo ma war a ñaanal sax muy dal waaye moom tamit dama koy ñaanal ñaan gi day dellu ci moom ak bépp ku ci taxaw rek taxaw bu rafet rek su ma limee damay juum. dëgg la maa ngi ñaanal ñëpp waaw. d'accord sëñ Niang. waaw ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw maa ngi tàggatoo magal li wax nii lépp dëgg la. Mhm. day jaay jën quoi moom marché poisson laa nekk. te jënd mhm. jën yóbbu Lambaye. Mhm. vraiment man ñu bari nañu ma sa sa jabar ji ma leen loolu bàyyi leen ko liggéeyam la ci laa ko fekk. du ko bàyyi ma sa bàyyi ci àdduna. ma ngi bàyyi mu continuer yoonam.

Sané Maajo la ñu kii wax comme jubóo bi am na kay xanaa di jóg di nga jóg rek daal di kii ah màgget nag may ñu loolu nag yéen maa ngi leen di laase di leen ñaanal bàkkee yonante bi seen taxawaay bii xanaa xamoo ne combat bi dama koy wax ñu ne damaa ñëw waaye xamoo ne combat dafa yaatu mm-hmm. ndax Papa Youssou Ndour dafa combat ba indi li Sénégal dëgg la te yéen tamit yéen a ngi combat de. la ndax léegi léegi ngeen bégal nit ñi macha allah. Mm-hmm. jël waxtaan wu neex rek teg ko ci seen bakkan rek nit ñi di ko déglu. dëgg waaw kon maa ngi ñaan senegal am jàmm. Mm-hmm. waaw papa Macky Sall tamit maa ngi koy ñaanal mu gën a am jàmm ndax lépp moom la moom tamit ñàkk ñoo jigadi. dëgg la tey daf teer bii mu fi teg nii mu mel ni abion boo ci toggee macha allah. Mm. da ngay mel ni kuy dem Paris. déedéet kay mayoon sax biir nag sax ma dem ñëwaat. <laughs> awa bégal ñi xam ne non terre bi dina dem Europe ah de damay laajte dama waaw sama mayoon benn kii billet boo xam ne sax dinaa ma dem ci yenn genre am fans yoo xam ne ah. ñi ngi may wax naa bis boo amee visa nga ñëw bégal ñu fii ñoo dagg euh, l'argent de poche bi. Mhm. waaw ñoom tamit ñu ngi ma koy laasé. sama téléphone yàlla baax na yàlla baax na borom bi mën na ko jàppale bu baax ndax yow tey ji am na ñoo xam ne danoo feebar sax waaye instant bi fan toog ngay rey. ndax lii nga wax ni dafa am solo. ci Sénégal dëgg la dëgg la. waaw maa ngi ñaan nag jàmm yàgg fi. télé bi ci kaw ci kalam la. waaye man gëw ma jubóo bi de jubóo bi pour ma gëm ko foog nga jub def neen na gisee ñaar jubóo bi am na ay ca jubóo bi am na <laughs> ah kon boog monsieur madame Niang kon ñoo ko gisandoo chers internautes lii lañ leen indiloon di leen jox rendez-vous très prochainement ak ci yeneen information